ci ñeenti ñeenti laaj bi ci njëkk mi ngi jëm ci ndax euh, secteur euh, pétrole ak gaz li nga xam ni noonu lañ koy soppee euh, jamono ji mi ngi mi ngi jaar ci yoon parce que ñëpp gis ngeen ni Petrosen dañ ko maanaam tëggaat mu am benn holding moo nekk boo xam ne moo nekk ci kaw muy Petrosen holding ñu ndir ko yeneen bànqaas maanaam ay filiale bu njëkk bi mooy Petrosen EP moom mooy toppatoo lépp li nga xam ne mooy seet li euh, nga gàncax yi nga xamni li nga euh, alal bi ci sunu compagnie yi nga TS euh, moy nga pétrole gaz bi

yooyu ñëpp dégg ngeen BP Woodside wala Cosmos ñoom ñooy ñëw indi seen alal di def liggéey bi alors euh, dugal si seen seen seen alal ba gis pétrole bi bu ñu gisee pétrole bi nag ñu séddoo ko ak euh, état bi ci ay anam yoo xam ni dañ koy dañ koy déggoo alors joxe boobu ak euh, jokkalante bi am entre état bi Petrosen ak compagnie boobu dañ ko bëgg a seet xoolaat ko xam ndax am na lu ñu ci war a dëgëral Euh, li ñu ci war a joyanti boole ci pétrosynthèse bi banqaas bi nga xam ne moom la ñu tëgg mu dugg ci jaayum pétrole bi euh, di bëgg a euh, teg ay station ñu bëgg a xool ndax loolu dina indi maanaam ay jeexital yu yu mucc ayib ci ci secteur bi ci ci ci Petrosen ñetteelu banqaas bi mu ngi jëm ci li nga xam ni pétrole ak gaz dinañ ko indi ñun sunu sunu sunu sunu sunu réew Nous ko sunu économie ak ñi yëngatu euh, ndaxte euh, ku nekk sañ nga ni euh, exploitation pétrolière ak gazière bi di ñëw man mébét bii laa parce que dafa nekk loo xam ñun ñoo ko moom te ñëpp nañ ni bu ñu ba commencé am jeexital ci sunu état maanaam sunu budget ñu am loo xam ci lañ koy def di ko ñëpp jàpp nañ ni que secteur privé bi war na ci mën dund parce que exploitation pétrolière et gazière dafa am li nga xam des euh, day day day day ñëw tafu ci ay activités yu bëri secteur privé yi mën na ci mën na ci gis gis boppam euh, jeexital yeneen yi euh, li ñuy accès à l'énergie manam jàpp nañ ni exploitation pétrolière et gazière bu amee pétrole bi hein ak gaz bi ni ñu ko daan jëndee dina wàññeeku loolu moom mébét la boo xam ni lu ñu mën a nangu la alors beneen bi euh, mooy ni que état bi euh, jàpp na ni alors ñi nga xam ni ñoo war a liggéey ci plateforme yi liggéey ci projet yi ay doomi réew mi la ñu war a nekk moom moom la ñuy wooye ba léegi ci contenu local la bokk lépp li nga xam ne dañ koy utiliser lu war a jëm ci lekk naan

tàggat foofu ay ingénieur ay technicien ak ñi ñi ñuy demee loolu euh, état bi aussi teg ñaari fonds benn bi mu wooyee ko fonds de stabilisation bi nga xam ni day permettre bu ëllëgee mëbët bi ñu am euh, maanaam euh, pétrole bi ak gaz seen njëkk wàññeeku fonds boobu mooy permettre ñu mën ko ñu mën ko am bis bu pétrole bi yéegee perte pétrole bo euh, bu euh, njëgu pétrole ak gaz bi yéegee fond bobu moy mën permettre ñu mën ko jënd ñun ci ni ko daan jëndé te mu nekk ci mu nekk ci anam yo xamné anam yu ñu mën yu ñu mën jot la. benen fond bi euh, mu nekk lu am solo tamit moy li ñu woowee fond intergénérationnel ñu japp ni état bi dafa war am lu mu desal ci limuy jot ci pétrole bi ak gaz bi ngir génération yi di ñëw xalé yi di ñëw suñu sët sëtaat yi bu ñëwé fekk fi loo xam ne ñoom aussi dinañ ko dinañ ci mën a dinañ ci mën a jariñoo ñu dénk ko ben société bu ñuy wax FONSIS nga xam ne da koy denc di ci am ay projet yu ko yu mu ciy def euh, ba nga xam ne dina mën di jiw ba pare des yi bu ñëwee mu am jeexital jeexital ji ñoom alors koñ bu mujj bi mooy li ñuy wax euh, ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci gox yi nga xam ni exploitation dañ ko fay def mu nekk ñu doon ñu doon nekkoon seen liggéey di ko def ñu mën a fexe ba exploitation bi euh, bañ leen yàqal wala bu ñu leen yàqalee état bi mun a fexe ba yàq boobu du euh, jéggi dayo wala ñu jox leen leneen mooy ñu euh, ñu mel ni suñu mbokk baykat yi suñu mbokk sàmmkat yi suñu mbokk nappkat yi surtout nappkat yi alors ñoom état bi jéem a fexe nu muy waxtaan ak ñoom ba lépp lu nga xam ne da leen day nekk loo xam ne mun na leen yàqal ñu fexe nuñ ko nuñ ko nuñ ko nuñ ko saafara beneen bi mooy gàncax bi parce que plateforme yi euh, ak exploitation pétrole et gaz en général dafay euh, maanaam song euh, sunu ga sunu sunu sunu jaww ji ah day day day agressé environnement bi ah di génnee ay ay ay ay ay ay mbalit ñu utiliser ay produits yoo xam ne ay produits toxiques la yoo xam ni war nañ xool naka lañ ko mën a traité gérer ko ba du am ay jeexital non seulement ci gàncax bi mais aussi ci ci nit ñi mooy préservation de l'environnement ci poñ boobu li ci njëkk li ci mujj nag mooy euh, li jëm ci sécurité ñuy fexe ba ñuy liggéey ci plateforme yi alors ñoom euh, ñu ñu nekk ci ci ci ci ci sécurité parce que plateforme ci kaaraange parce que plateforme yi ay plateforme yu rëy la ñu nekk ci biir euh, géej gi sori lool ñu war a jël ay dispositions yoo xam ni euh, suñuy ay doom ñoo fay nekk parce que ci plateforme yi bu leen fàtte ni euh, compagnie ñoo fay nekk wante ñi recruter ñu bëri ñu nekk ci machine yi nekk ci bateau yi nekk ci liggéey bi ñoom ñëpp su ay sénégalais yu ci bëri moom la ñuy moom la ñuy doon ñu fexe ba ñu nekk ci kaaraange ñu fexe tamit euh, ba installation yi ci boppam yi fa ne ñu nekk ci kaaraange parce que installation fu mu nekk di utiliser ay ay ay produits yoo xam ne ay produits inflammables la war nañ jël ay dispositions pour que

nekkin boo xam ni dinañ mën a aar sunu sunu alal yooyu parce que ñu gis nañ ni dëkk yi nga xam ne exploitation pétrole ak gaz dafa am ñàkkul léeg-léeg dina am ay ay euh, ñu fexe ba euh, maanaam teg dispositif yoo xam ni ñun loolu dinañ ko mën a dinañ ko mën a kiyal euh, sunu fànkal sunu sunu sunu réew voilà boo leen gisee nag ñu ñëw fii tey alors. doxal waxtaan bi ak ñëpp ñi nga xam ni ñoo nekk ci région de Thiès te euh, exploitation pétrolière et gazière bi soxal leen maanaam euh, autorités locales yi autorités territoriales yi chef de services régionaux yi suñu mbokk béykat yi suñu mbokk nappkat yi suñu mbokk euh, yi nga xam ni ñoo ñoo yor napp bi hmm, ak ñeneen ak ñeneen dafa fekk ni exploitation pétrole ak gaz ñun daf ñu soxal ñun ñëpp d'ailleurs euh, loolu moo tax code pétrolier wax ni léegi ressource pétrole ak gaz bi Sénégal Sénégal ñi nga xam ni ñoom ñooy euh, doomu Sénégal ñoom ñoo ñoom ñoo ko moom euh, ba tax na lépp lu ñu def lépp luñ ci liggéey dañu war di waxtaan ak ñoom di laaj seen mébét di laaj seen li ñuy xaar ci exploitation boobu di jël seen xalaat seen kaddu di ko segg ba lépp lu ñu wax ñoom ñu ñu ñu ñu ñu taataan ko jël ko en compte

ah di di di def eh, eh, maanaam di ko di ko jaay ah eh, di di di woo di woo ñi nga xam ni ñoom ñoo ñoom ñoo am alal ah, mën ko ci mën ko ci mun ko ci dugal di xool ndax jaar na yoon parce que boo xoolee loolu yëpp ay yoonal ñoom ñoo ko tënk maanaam ay loi ay règlement moom moo ko tënk depuis ki nga xam ne mooy ñëw ñu koy signer contrat ba ñu koy jox n'est-ce autorisation pour mu exploiter yooyu yëpp ay ay yoon la boo duggee même ci exploitation bi ba am loo ci am bis boo koy jaay aussi loolu dañ koy yoonal ñu jàpp ni loolu yëpp mu ngi ci sunu sunu liggéey dañ ko xool saytu ko bu baax bu rapport bi génnee amaana ñun booba lañ ciy mën a wax euh, parce que Cour des comptes moom du ñëw rek wax maanaam day gëstu laajte seet euh, waxtaan mais xool yi kayit tamit parce que fi ñuy dem yëpp dana di laaj ay kayit ñu jox ñu lu ci nekk ñun méngale ko li ñuy jëfin bi ak li nga xam ne loolu la yoon euh,